na ngeen wéy di abonné fii ci Darou Mouhty Vision di abonné bés cloche notification bi partager vidéo yi ngir bépp vidéo yi ngeen dugal la bokk ñu ko a jot jërë waa koy jërë ngeen jëf mbokk yi bi di Darou Actu ñoo ngi leen ñaan ngeen di wéy daa a baax tey partager yi mooy tax saa yu ne ñu mën a dugal vidéo ak yéen ñëwaat ci leeral jukki article yi maanaam c'est-à-dire 34 bu nday saati réew mi constitution jëloon saa su ci la wax yi maanaam candidat bu amee ngant lu dugg ci définitive wala mu bàyyi ci diggante bi ñu fasaale lim ak la wax yi maanaam di séddee candidat ak wërngali wu njëkk ci premier tour ci premier tour ñaase moo di jongante des koy wéyal ak yeneen ni la ma leneen candidat yi nga ñoo jàll ci ndey soog saatu réew mi mooy si moo di conseil constitutionnel day day daal di soppiwaat léem ak la wax yi maanaam liste des candidats conseil constitutionnel moom da koy soppiwaat loolu soog pàgg nag moom moom mu doy waar loo xam ne daanaka ñu bëre bëri xalaat dañu ko woon waaye conseil constitutionnel moo xam ne loolu da koy soppiwaat maanaam day daal di soppiwaat léem ak la wax yi ba nga xam maanaam leelu tànn date bi sécurité moom maanaam dañ koy soppi ko waat tamit ñi nga xam ne date bi nga xam ne moo ñu war a def élection 2024 bi moom it conseiller conseiller constitutionnel xam na ne date bi aussi tamit dañ koy dàq waaye dañ koy jàppaat beneen date te it ñoo di candidat yi dañ leen soppikuwaat bu baax a baax jërë ngeen jëf. na ngeen wéy di abonné fii ci Darou Motivation di abonné bés cloche notification bi partager vidéo yi ngir bépp vidéo yi ngeen dugal la ngeen bokk ñu ko njëkk a jot jërë